Libération yéene kaay ne Plus day mi ngi ndaataatal ak noos ci ndoddug askan wi le ci lu yoon ci juróom-ñeenti at yi yëpp ñoom waa Canal Plus Libération yéene kaay ñëw ñun ci Canal Plus gis nga mm. leen ndoddug askan wi lañ nekk rek di lekk Canal nekk waaw nekk li ñuy liggéey dañuy liggéey ñoom dans l'illégalité mm. seen dara jaarul yoon pour muy leer dégg loolu libération ne saskanu sénégal doy ñu bay des ndax canal plus ma ngay suukuru seen kaw yëglekaay bi na juróom-ñetti at a ngi canal mu ngay dóor askanu sénégal maanaam dil dëgg lay teg seen kaw